ah bi may tarbiya dama toogoon bu buñ ma amaguma fanaan jees bu mooy ñu ngi lay xàcc pour dugal la ci pay bi yàlla bi fanaan jeex dem ba xam ne ndekete yow nekkoo donc ci diggante boobu laa dégg son bi boobu maa ngi wax laa ilaha illallah di ko xaatir ak a settantal dégg ko mu naan when you want it the most there is no easy way out when you ready to go and your heart left doubt there is no easy way out maanaam mu ne soo paree pour dem amul fenn fu mu yombee pour nga yegg fa nga jëm mhm. waaye soo paree pour dem sa xol bi di sikki sàkk doo yegg fa nga jëm doo xam la nga jëm lan la mooy yàlla ñëpp xam ne ne yàlla nekkut fi dara nekkut fi lu dul yàlla mais gëm ko ba dëggal ko mhm. ba li nga jàkkaar loolu nga jàpp ne loolu amul loolu sa xol bi bu sikki sàkk rek doo ko am ci laa dégg son bi mhm. ma dem ba xam ne laa ilaha illallah du liñ ko firee ne dara amul fi lu dul yàlla waaye laa ilaha illallah eh, eh, eh, du niñ koy firee ne waruñoo jàmm kenn ku dul yàlla da nga dem ba xam ne keneen daf fi nekk nekkandutoo moom bañ koy jaamu donc li fi nekk mooy yàlla point. d'accord amut sax amul. alors bu nu defee benn flashback bu ndaw ci ginnaaw euh, amoon nga fi problème yaa ngi koy wax sànq en rigolant euh, ñu toog. Euh, 3 mois su ma juumul. gisuma la 3 mois manqué na quelques jours. quelques muy manqué quelques jours euh, nga daal di dugg kaso yéene wuñ la ko woon vraiment euh, mais déjà naka nga ko dundee. man moom suma ma dugg kaso moom jàngat laa ci jëlee bu am solo euh, découvrir beneen àdduna laa ci jëlee. c'était la première fois. waaw waaw pour manoot sax ñu ngi ko door a takk suma loxo hmm. parce que man xam nga muumin laa muumin du def crime. Hmm. ñu ngi ma door a manote suma àdduna bi ma amee 35 ans yu manqué tuuti ci 36 ans la ci biir kaso la ma fekk quand même mais man sant yàlla because nit mën na juum mu daanul kaso mais man ci xam-xam leen ma yóbboo kaso te bi lépp dalee ñii d'accord ne ne am na lu ko gën a ñaaw te yóbbul ñooñu kaso ñii d'accord ne ne wax ji jarutoon kaso ñii d'accord ne ne procédure bi même personne dóoree gaañ ko vidéo ko luwaa waroon na def liggéeyam su luwaa defutoon liggéeyam waroon na am compensation parce que ndax du gàcce tey ci nguuru Sénégal ne Cheikh Ahmed door neen ko menace à mort kidnappé ko yo boo xam ne bëggul faa dem même Cheikh Ahmed def propos ci jumaa yi Mame Matar Gueye porté ko plainte ngeen tëj ko ñetti weer ndax doonul gàcce pour nguur gi ndax doonul gàcce pour justice système bi nga bi nga bi nga duggee kaso lan naka nga ko dundee ban sentiment moo la animé woon. noot biñ ma njëkkee jàpp jour biñ may jàpp la suma yaay am ñaari at ci suuf ñu ko doon war a ñaanal may taaw ñu ma doon xaar pour ñaanal suñu waajur ñu xañ ma loolu you know euh, suma anniversaire fa la ma fekk suma rakk bu ma bokkal ndey ak baay bi ma ko doon toppatoon ngir mu jàngi Amérique bi muy dem mënuñoo waxante goodbye ndax dinañ gisante waat you know ko foofu biñ may jàpp di ma yóbbu pour man den may laaj. da ngay dem ñëwaat. may laaj ñëlee ñëw ñu toog waxtaan. ok su jaree condamné ñu condamné su jaree tëj ñu tëj su jaree rey ñu rey mais pas da ngay ñëw rek kaay nga toog instruction ñu gëstuwaale affaire bi 6 mois. mais kaso dafa métti. metti na waaye man suma kaso méttiwul. lu tax. li tax mooy dama dem jàngee fa lu bari dama dem xamee fa lu bari dama dem gis fa lu bari mais dafa ma kaso dafa ma permettre ma xam dëgg-dëgg lan mooy Sénégal ko loo fa jàng. jàng naa fa modeste. tu n'étais pas modeste avant. non. da yëgoon sa bopp réew yëg suma bopp <laughs> jàpp ne man ku yàlla bind maa la gën mais ci kaso laa xame ne damay fenn c'est la vérité mooy nit rek la ak lu ma mën a ak lan. jàng naa fa euh, valoriser liberté. importance su liberté su liberté kaso moom ma ko wan. ci biir kaso laa xamee ne ndeke yërmande yàlla yegg na sa ba ci pax-pax yi suñu yaram parce que safara mu suñ biir buñ tàngee. yàlla dafay alimenter kilim bi. ubbi pax yi ñax yi génn. Mhm. léegi def na ci karaw pour ngelaw li bu mu duggaat sa yaram. kaso moo ma permettre ma comprendre que ndeke li sa yërmande yàlla la parce que da ngay toog téléphone am na ñuy rang pour woote ute naag oota dama daan dugal li ñu mille quatorze mille nangam. wax ba nelaw. <laughs> donc léegi maa ngi valoriser appel foofu boo may woowee loo amul fayda sax du ma la mun a jël donc ci kaso laa xamee ne loo xeeb rek am na ko ko soxla ndax argent xam nga yow amatoo soo su nit duggee kaso arsanda mooy ëpp importation ak batterie rajo pour déglu information <laughs> man du ma déglu rajo ci kaso la donc ngay gis koo xam ne ñun suñu nekk amoon na benn milliardaire man maa ngi fa en tant que benn waliw bu mag am na ay borom xam-xam amay borom xaalis mais suñ chef de chambre dawalkatu seret la woon ci biti te yéen fa ñu fa ñun ñëpp moo ñu contrôlé chef de bi dawalkatu seret la donc mu def ci man modestie donc man du ma daan fanaan ak kenn ci kaw lal sa kër non non jabar sax duñu fanaan kan jabar sax duñu fanaan ah déedéet loolu moom wax non da ngay ñëw match bi jeex nga tëdd sa lal ma tëdd suma lal du ma fanaan ak jabar mais kaso lal bu yem nii laa doon tëdd ak kenn te daf daan yaatu ci man te góor la donc mu yar ma bi ma ñibbisee rek laa commencé fanaan ak soxna <laughs> xam ne ndeke dama noonu réew réewlu rek donc dafa def ci man lu bari moo tax ma génn rek mhm. gërëm ma Makhtar Gueye offrir ko billet pour mu dem Fass ziyaare Cheikh Tidiane da nga ko béybiyee gisuma teraanga bu ëpp boobu ñoom ñett la oustaz Mouhamed Mbaye imam ratib bu wakaam macha allah parce que oustaz Mouhamed jamono bi li ñuy jàppee ne nit ku bon laaw neexuma farle mhm. jàpp ne moom a gën moom am na image bu rafet xam nga nit ñi dañoo def rek xamuñ nit xamuñ mais wax naan Mama Tall daf la tooñ dafa tooñ sénégalais yi nga génn may ko non la tooñ parce que xam nga man dama neex nit ñi den may consommer nga jàpp ma xañ ma nit ñi ñetti weer dafa rëy <laughs> mais moom bi ma jàppee mere naa ko. oui. parce que ci man jaarul yoon quoi ci man jaru ko. pour man débat xam-xam ci lislaam débat xam-xam lay doon. oui. pour man borom xam-xam dañu waroon a daje waxtaan. Cheikh Ahmed lii foo ko teg mais ba tey xam nga ne lu wax ji bari bari bari. den hmm. daan wax ji dafa amul teggin wax ji dafa ñaaw. waaye mais kenn neewul ne lii amul. moom ba tey moom benn borom xam-xam ñi moo ko wax. man man my style mooy choquer pour éduquer. choqué pour éduquer noonu lay defee parce que xam nga tey su ma ñëwoon rek wax yëpp mu leer kenn du ma jox attention bi mu am mais gaañ bi non mais kii kii doomaraam la quoi. ay quoi kàppur ni ñu koy séddee ci juma. donc nga déglu mais bi ma demee kaso ba ñëw la gars yi comprendre oh non mais xam-xam la mais waru ko woon a wax quoi juma mais juma jëfandikoo kaay la ñun ñoo jàpp juma julli tëj juma tribunal la fa la yonentu daan àtte juma mooy shelter. tey boo tukki woon yow en tant que musulman amoo fa dëkk dañ la war a ubbil jumaa ji nga dëkk moo tax ku tëj jumaa tabax néegi jumaa boo demee Touba amuñ kër gan mhm. Tiwaawoon amuñ ko amariens yi fii ñu ngi tabax néeg gan parce que boo tëjee guma jumaa danga war a def néegu gan pour ku ñëw amul fu mu dëkk d'accord mais chrétien amoon na droit dimanche ñëw ñu ubbil ko jumaa mu jaamu yàlla mais li la fa dugal rëccu nga ko quand même non même pas rëccu woo ko non non non si c'était da nga koy defaat non non non ko defaat parce que Euh, rëccuwuma ko ñaari kàddu la su ma diggante ak yàlla rëccuwuma ko. ok ndax jéggaluwuma yàlla yàlla xam na te mooy nattu jaam bàkkaar. Mhm. mais maag nit ñi rëccu naa ko. d'accord parce bu fekkee ne danga am xam-xam war nga ko joxe nit ñi def façon boo xam ne du ñu blessé mais même benn nit sax mer na ci. xolam naxari na ci xam-xam jaru ko parce que nit dafa fort sentiment am am na solo côté boobu réccu naa ko. bien alors ñu ñëwaat un petit playlist bi jox ma sa troisième chanson Keesu euh, Jee. ban ban ban chanson oui chrétien la tamit gospel la américain la. d'accord Keesu mooy if God be for me bu dee yàlla pour man la kan laa war a ragal. d'accord alors dañuy dem seetaan juste un extrait. léegi léegi ñu dikkaat ci uh-huh. plateau bi.